ñu naan list bi resevoir nañ kook list bi recevoir wuñ kook list bi nangu nañ kook list bi nanguwuñ ko li ñuy njëkk a ñaawlu mooy ñàkk kóolute gi nga xamante ni gis nañ ko ci way politique yi ci seen biir yéen wóoloontewu leen tibbante tànk ak rayante ngeen fi bëgg a nekke waaw nan ngeen bëggee askan bi wóolu leen kenn wóoluwut sa moroom ba pare ngeen bëgg askan bi wóolu leen loolu mënul nekk faw ñu joxante cër respectante ànd ànd nawle bu rafet ngir bëgg ngir ñu mën askan bi wóoluñu tamit à tour waaye gis nañu fi mu ne rupture de confiance boobu dafa am entre les hommes politiques et les femmes politiques loolu jàpp nañu ne mënatul nekk leneen lii nga xamante ni seetlu nañ ko fan yi mooy dañoo dégg ne di ko dégg fii ak fële ne kuréel gi nga xamante ni moom la ñu jox muy saytu li nga xamante ni moom mooy wàllu processus électoral bi muy la direction des générale des élections gis nañu taxawaay bi nga xamante ni am na ko moom it ñu koy ñaax ci ne liggéey bu rëy moom la amee liggéey boo xamante ni sax waratuñoo xaar li ñu gis ci élection bi tax na ñu jàpp ne la direction générale des élections waratul xaar sax élection ngir ñuy dégg kàddoom war nay gunge way politique yi ci xalaat war na leen di gunge ci tàggat war na leen di gunge ci ñu xam charte yi nga xamante ni moom moo ñu tënk ngir yu bari yu ñuy gis bu ñu jógee jëmee ci élection yi ñu mën koo moytu ndax li ñu jàpp mooy sénégalais boo xamante ni sàmmoonte nga ak charte yi bu ñu tollee ci jongante war ngaa mën a bokk wane sa yéene bi ñu gisee nag processus bi jaaruwaay ba fii mu agsi tey gis nañ ne ci ci ci ci ci ci sumb bu njëkk ba maanaam bi ñuy déposé parrainage yi gis nañ ne ay sénégalais yu bari ay sénégalaises yu bari wax dëgg yàlla direction générale des élections wax na leen ne matalu leen li nga xamante ni moom la ñu bëggoon ci yéen ñooño it ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ñàkk gee matal teguñu ko ci yoon dem nañu wax fa ñu ko war a waxe fa mbaxane doone benn am na ci ñoo xamante ni it nangu nañ ne liñ leen wax yoon la ñoom wuti nañ beneen yoon boo xamante ni ci la ñuy jaar ngir dëggal seen yéene loolu it jàpp nañ ne réew noonu lay doxee loolu it moo tax ñu jàpp ne ñii nga xamante ni jamono bi ak fu ñu mën a bokk wax nañu leen ne lii moom moo am ne leen mënuñoo jël seeni mbir ndax matalu leen wala jàpp nañ ne yoon bi ngeen waroon a jaar jaaru leen ci ñun nag jàpp nañ ne li ñu war a def ñoom mooy ñu daal di def ni nga xamante ni ñoom la ñëla defee bu jàpp bu fekkee ne dañoo jàpp ne dañu leen a tooñ ñu dem fa mbaxana doone benn su fekkee ne dañoo jàpp ne li ñu leen wax moom mooy yoon li ñuy ñaan direction générale des élections li ñuy ñaan le ministère de l'intérieur mooy que ñu doxal yoon ba mu mat sëkk